une une frange. Mhm. du monde du travail bu yaakaar ne dañu nekk victime d'injustice seen xel si Jamra lay dem. Mhm. depuis 98. Mhm. ci dossier Sotrac. boobu Abdou Latif Gueye fi fekkoon. am na lu mu jotoon a dox ànd ak ay naataangoom. Alioune Tine soxna Fatou Sow i Iba Der Thiam. ba neuf milliards yeneen état bi amoon ñu décroché foqati cinq milliards jox leen. noonu ba bi Abdou Latif génne àdduna ñun ñu jël le relais. dégg ngeen fi ciow ama Sénégal l'ancienne société de nettoiement. Mhm. yàlla dimbali ñu euh, waye nak je mhm. précise. Mhm. avant d'aller plus loin. que cas yëpp. amu ci benn cas. te mauvaise langue yi ñoo tax may wax. bu Jamra di jog di ci dugg. te sollicité wuñu kon ma ngi wax à l'intention des ñaaw Jamra ne fait pas de l'auto-médiation. nous ne sommes pas des médiateurs autoproclamés yalla ñu yalla yàlla musal waaye bu ñu suñu ay mbokk euh, sénégalais. Uh-huh. sàkkoo si ñun. Uh-huh. ñu assister leen pour que ñu mën leen rétablir. Uh-huh. dans leur droit. su boobaa Jamra dana def lu mu mën ak lu mu mënul. moo xam dana antu wala du antu loog suñu borom loxo la ne waaye ñun ku ñu solliciter rek on exige. que nga saisir ñu par écrit. wane ne yow yaa ko sàkk ci ñun. alors euh, Ama Sénégal donc euh, en 2016. dans la même lancée avec le soutien du Premier ministre Mohamed Boun avec Amadou Ba ministre des Finances yalla dogal na 3 milliards yi len état bi ameloon bi ñu dissoudre société bi jot nañu 3 chèques de 130 millions 490 millions et je précise encore que en passant que luñu dox ci walu médiation ba état reconnaître tooram wax ne mo wara fay ñun on se retire suñu mission jeex na du jaar suñu loxo chèque du jaar suñu loxo deuxième précision alors médiation yi di continuer ba bi fi Makhtar Cissé nekkee fi ci Sénélec euh, bi compteur wayfal yi doogee xew ñom dañuy jàpp ne dootuñu soxla euh, ñi daan saytu mbirum compteur yi. Mhm. parce que compteur Woyofal dafa melni rek nga sa téléphone mhm. portable da ngay dem jëndi crédit rek ñëw kii mhm. di gérer sa bop alors ñom ñu daal di ne dootuñu soxla ñu relevé compteur duñu soxlaati technicien yi nga xamné bu délai bi passé té client bi fay ñu coupé ko comptable yi nga xam ne bu ñu et cetera ñu nek 700 personnes ñu dàq leen euh, dàq bi ne dafa tegul won ci yoon. parce que dafa am procédure bu yoon wax. manam ñom dem nañu ba gis né xër bi ñu yaakaaroon ne ni ñi dañ ko xër ci compteur yi. déméwul non ñu daal di jaar ci suuf nak di recruter waat. les mêmes profils yi ñi dàqoon. alors ba ñu saisiré euh, Martar Cissé. maa ngi koy remercier daal di ma dalal. euh ma ñëw porter la parole de ces victimes d'injustice. ba mu jégi daal. Euh, euh, que convention collective article 10, même en cas de suppression d'emploi mhm. ou de compression d'effectifs. vous mhm. société de sentir le besoin de renforcer. Mhm. ses effectifs la priorité doit être donnée à ceux qui étaient là. voilà Martin Sisegel jël 493. Euh, bi mu Pape Mademba bi nous ñëw na jël ci 18, mhm. jël ci quinze. Mhm. kon travailleurs. Mhm. réintégrés. des travailleurs qui étaient restés 35 mois sans salaire. ginnaaw ñom bañu sollicité Jamra je le précise. way ñu alors nous, le dossier est en cours dégg le dossier des anciens combattants de la guerre du Golfe. le euh, président Macky Sall Bolé avec le par avec le ministre des forces armées boobu Augustin Tine moo fa uh-huh. après dossier bi jëm primature euh, prémices recevoir. Uh-huh. créé une commission technique. présidée par euh, son chef euh, son son conseil technique militaire. le uh-huh. général Amadou Anta Gueye. ñu convoqué Jamra man ma démon taaj ma ci digg bi ay militaires ma. <laughs> y avait le colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA. ñu ma séq ak ñom ay laaj ak tontu. ak euh, irréfutable mhm. pour wan leen ne détourné mhm. voilà bref yooyu yëpp nañ ko mhm. président Macky qui a le dernier mot alors actualité semaine bi nag la sur foncier là aussi ñoom ñoo sàkku ci Jamra mu troisième des donc Baye Seydi euh, Baye Seydi ñu di ko wax Issa. Mhm. voilà maa ngi koy sant ndax moo ma woo. Mhm. Euh, daal di ma tënkal problème bi. Mhm. nee ma dafay def conférence de presse ci benn hôtel bi ñuy wax Océan. donc fa la yëf ya jëkkee. conférence de presse ba mu jeexee nag. ñu daal di defaat beneen daje bu gën a yaatu ak presse bi. voilà ma defal leen benn exposé. pour euh, dindi amalgame yi ay saay-saay bëggoon dugal ci dossier bi. macha allah waaw bëgg a jaxasee. Euh, euh, nous dit la loi sur le domaine national. Mhm. la loi 6446 du 17 juin. 64 mhm. mhm. avec le litige du titre foncier 4407. l'a de manière irréfutable. voilà le dossier bi est en cours. voilà les qui qui daf qui doivent a recevoir. dafa doivent recevoir euh, ñetti collectif yi. donc maa ngi dégg ay ñu Maxtaar kenn yónniwu ko man dama soxla ku ma yónni. <laughs> man ñi dañu ma woo. Mhm. ma leeralal leen leer na. Mhm. xalal naa leen yoon. Mhm. nañu dem toog ak président ndax euh, Kocc nee na. nettali ci lamiñu borom la dax waaye waxuma fenn ne ay Sambata Ndiaye ma yónni waxuma loolu soxloo ma ko sax. parce que on a mille dossiers de médiation sociale xanaa yoo fa ci mujjee. voilà xëy na balaa yàgg nag euh, président dina leen woo. séq ak ñoom waxtaan. mbir mi leer. waaw ñu xam li ci lëndam lan la. parce que amuñu droit di séddoo soufu jambour entre politiciens. bay ñii nga xamné ñoko donne sen doon ndax xam nga titre foncier. 4407. té mu am ñu bëgg tour tuur lëndëm. askan yi bëgg ko jaxassé ak loi sur le domaine national. le titre foncier boobu jotewul dara ak loi sur le domaine national. ci gàttal loi sur le domaine national. 17 euh, juin 1964 premier président de la république Léopold Sédar Senghor la fi faire mhm. mhm. moom moo dem ba ni. Mhm. suñu maamu lébu yi daf ci bari ñu bari lu ñu dal. ci régulariser un xam nga dañ daan donné des ñu am ay héritage. am ay testament. am ay attestation de de de de bien coutumier. des documents coutumiers. voilà Senghor na ak charte ndax Sénégal amna indépendance léegi. bu uh-huh. ne euh, euh, ñu ngi toll ci suñu ñenteli at indépendance. Uh-huh. alors mu jox len délai. Uh-huh. voilà mais malheureusement ba délai ba jéxé ñi dem euh, régulariser bari bariwul. et ça se comprend parce que ben journal la fi amoon. moo doon Paris Dakar qui est devenu par la suite Dakar Matin ensuite Soleil bi am tay tey. ben radio fi nekkoon muy radio Sénégal. alors Senghor yokkaat délai bi ba décembre. am amna ñu ko dégg commencé ñëw régularisé c'est l'écrasante majorité des familles traditionnelles euh, lébu ndax euh, yàlla daf leen nato, c'est des propriétaires terriens pour la plupart ils ko alors état bi alors l'État di frappé mais ah de yi Le na léegi nag mbooleem koo xam ne régularisé wuloon une propriété coutumière foncière daal di ko yàkkal état dans son assiette foncière loolu la ñuy tuddee la loi sur le domaine national état bi fop ndono jàmbur def ko moom moomeelam ba pare ña ko moomoon mu jox leen permis d'occuper à titre précaire et révocable mooy man état jël naa sa suuf parce que wax naa la nga régulariser ko ngay benn benn la jël naa ko abal naa la ko léegi mais à titre précaire et révocable mooy saa wu ma neexee ma kon nak loi sur le domaine national wax naa ko ca kaw maa ngi koy waxaat fii sama baat ca kaw c'est la plus grande injustice foncière bu gàllu ci loosu les familles euh, les propriétaires euh, euh, terriens traditionnels particulièrement les lébu Senghor nag wax a yàlla defar la si jubloolu Ouais, dafa mujj jul saafara dafa mujj nekk saafara bu jur jàngoro macha allah diggante bi nag après am na ay responsables coutumiers yu ci par exemple Alaaji Bassirou Diagne grand sérigne de Dakar chargé woon na ma ñu bind demande d'audience chef de l'État comme nous ma ñuy chargé ma le bindal leen te lettre ba dem na incha président de ci ànd

loi sur le domaine national mofa fa jaar. régulariser état nangu ba jox leen permis d'occuper C'est qui est injuste. avocat c'est un humaniste. et puis il a horreur de l'injustice. alors mom ci dama koy ndax séance bi mat na la créé une commission. Euh, pour muy saytu yooyu kon une commission bi liggéey na lu bari bari. avant di joggé ci nguur gi. ñu bari ñu ay ko jaay. le nu mu tuddati promoteur immobilier bu ñëw. ba ngeen d' accord ci prix bu ne ana kayitu kër gi ne nga jox ko mu ne nii ne eh permis d' occuper oo oh, loolu échoué gars yi seetaat am na famille yu seetaat beneen façon. alors daal di miraas ba pare daal ne bon léegi au ñu jaay. nañu àbb banque xaalis tabax. xam nga banque moom pour tabax kër loo ko àbb ci ak xaalis mu jox la. Mhm. parce que bu defee évaluation kër gi. gis ne toll na. wala ëpp na valeur ci li mu lay abal. et eh bien daf ciy sawar. ndax boo fayul mu mën a. mu saisir banque itam bu ñu ne bon d' accord ñaata ngeen soxla 200 millions 300 millions 400 500. alors ñoom sawar nañ ci loolu waaye ñoom itam bu ñu demee ba ne yër seen bët. ci kayit yi daal ni eh permis d'occuper wóorul. Bassirou Diagne ne ko nag beaucoup de familles sont pénalisées ñii seen i maam dee na ñii seen i baay dee na ay sëtu fi des. alors donc président de la république jëloon na matuwaay pour ñu def lu ñu tuddee moom moo ko tuddee noonu moom Ablaye Wade un redressement de l'injustice foncière alors il paraît que Macky Sall y a une continuité euh, personnellement j'ai ci information précise waaye loolu le taxoon fait la loi sur le domaine d'un un pays côtier à l'océan Atlantique ndax des avions de guerre yi bu ñuy sur les théâtres d'opération Nous avons a am tête de pont aérien Nous quand éventuellement bu ñu ravitailler mhm. en carburant mhm. wala def des entretiens mécaniques nous avons euh, mu mën a nekk pied terre gouverneur Touba biñ fait fi fekkoon nak ne la ah souci dafa am borom. tubaab comme que dafa légaliste ñu né kuko mom ñu né ah c'est la communauté lébu ñu daal di toog ak magum lébu yi fi nekkoon. daal di signé ak ñom ben euh, këyit bu ñu wax réquisition pour cause d'utilité publique. mu nekk 864 hectares. 8 millions 640 mille mètres carrés. tubaab yi jël ko def ko aérodrome militaire. parce que avant muy aéroport. civil militaire. usage commercial aérodrome militaire nous sommes la guerre alliés hmm. le pouvoir colonial militaire deux ans après la guerre en 1947, a dit « aéroport au pouvoir colonial civil hmm. parce que n'y une indépendance Nous hmm. tamit di aéroport militaire avec une partie euh, civile de l'aviation civile un usage commercial L'indépendance, le pouvoir colonial civil le premier pouvoir du gouvernement du Sénégal indépendant ñooñu nag ñoo ñoo ñoo ko jël moderniser ko mu nekk aéroport waaye ba tey waxuñu ak ñi ko moom lébu yi ndax man am naa suma benn maam bu ñuy wax Moussa Diagne bàyyi la ci suma euh, ndey Fat Diagne Mariam Diop di bàyyi ci Bassirou Diagne parce que seen frère bàyyi la di Amad bàyyi ngañ moom amoon na fa tool xanaa ñun ñoo ci gën a ñàkk ñàkkale maana mais am na yeneen famille lébu yu fa am lu ëpp ñun lañ fa am alors kon ba guerre ba ba indépendance jotee. ba mhm. tey waxuñu ak léblu mhm. di ko defar ba aéroport bi taaru nii mu taaru wax yaa xay boo demee ba ne léegi ngi euh, euh, déménager mhm. les infrastructures portières vers Dias. xanaa nag nga wax ak ñi moom suuf si defuñu ko ñu tëju ci seen biir entre politiciens et hommes d'affaires di tong tong affaire bi di ko alors ki jëkk été alerté te je lui rends hommage c'est l'ancien premier ministre Abdou Mbaye par lettre, certainement, d'un Lettre, parce qu'il est très méthodique, mhm. par lettre en date du 1er mars 2013, moi, moi, saisir le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pate Sec. Mais que dès que ay irrégularité yu tàmm di am. Mhm. ci titre foncier euh, aéroport bi L'aéroport, aéroport bi sax tout toxalaguñ ko. Mhm. loolu laa bëgg nga saytul nga def commission saytul ma fait une def commission mu am ñeneen itam am ay action parallèle à l'action gouvernementale def seeni commission ñoom tamit di un mois plus tard donc euh, près d'un mois plus tard donc le un peu plus d'un mois le 10 avril 2013 ci ñi doon saytu ñu am ñoo xam ne jébbal nañu premier un document scandaleux mm-hmm. ay hommes d'affaires yoo xam ne ñu ngi ci tong-tong bi ñii xàppati nañu seen wàll ne dañ koy def ay villa de luxe jaay ko ay nasaraan mm-hmm. ñii nee nañ dañuy jël euh, seen wàll def ko restaurant ñii ne euh, ay dancing ñii ay casino carte xaalis mais pendant ce temps ñi nga xam ne seen maama ko moom mu di les familles Lébu de Wakaam Ngor Yoof dégg nga avec l' explosion démographique da ngay dem ci ay kër yoo xam ne mais benn pantre nga gis des quatre cinq jeunes di fa buuxante di fa fanaan am na ay famille yoo xam ne macha allah dañu sakkan ba am na ñuy fanaan ci perong yi amna ñuy fanaan ci wañ mhm. loolu du deug du yoon seen maam fi ñu diko tong-tong ci seen mhm. ñu mhm. alors maintenant euh, nak là rendre nañu un mauvais service euh, fay ñu nar bi en quelque sorte à Baye Seydi le troisième khalife de Seydina Limam ndax ba état soxla ndax bobu la fait. les les les villas euh, moyens et grand standing yu demee ni Sicap Fann yu demee ni Fann yu demee ni Mermoz comme que du poche yëpp a ko jekku uh-huh. léegi état dafa bëgg bayal bu yaatu uh-huh. ñu def fa des un projet de logement sociaux alors c'est bëgg-bëgg daal di tegu fii ci fii parcelle nekk uh-huh. gars yi ne ko ah lébu yee ko moom de Senghor mon sol dàllam dem si Baye Seydi Thiawlaay wax ko sàkkute fam Baye Seydi dawal yërmande jël 364 hectares 3 millions 640 000 mètres carrés jox gratuitement à l'État du Sénégal te am na ku ma dégg mu non c'est pas gratuit je mets au défi quiconque de prouver que Baye Seydi Thiaw Laye encaissé un franc de l'État mu daal ko jox gratuitement daf ko ne ah c'est pour l'intérêt général day ak yéen yi nga wax ni mu réyee pour ñu may néew ji doole yi ñu am un toit joxe naa gratuitement Sénégal daal di def lotissement parcelle Assainies unité 1 ba unité 26